dafa xam naa ne dafa ko comme ni ñu ñàkkee jox suñu kër parce que man xam naa ne yéen ñi ñëpp ku ci nekk sa ngor ak sa jom rek ma la fa téye mais seen seen ay ñu leen seen bëgg jox ñu leen ko moo tax man tamit ñu ñoo bokk même problème man ku ci nekk xaw ma damay mën naa la wax lan moo nekk sa xel jom rek moo leen fi téye Sénégal mooy dëkk boo xam ne da ngay am talent nekk ci benn place mais da ngay bañ rek da ngay bañ ñu voilà mais da ngay toog seen rek te yàlla mais maa ngi ñaan ñeen tamit ñun lu ñuy rêvé ak lu ñu bëgg ngeen egg parce que yéen bu ngeen génnee fii di ngeen di ngeen di ngeen tedd ci aar bi di ngeen tedd ci li ngeen def ñoo bokk man xam naa lu bari ci yéen da ngeen ñu ñafe rek mais seen gëdd ak seen àq fay ñu donc yaakaar naa di ngeen ñu sentir di ngeen xam ne ñun fi ñu waxee dinañ ko xam ñun ñoo ëpp lu rek mais yéen boo ko leen doon dara kay wax yéen a ngi sax yéen a métti parce que yéen yéen a ngi fi ñaaree loo xam donc maa ngi ñaan ngeen seen coono bi ak seen métti yàlla dindi ko quoi. amiin amiin yéen tamit ngeen bale ñoom fii ngeen am ay vision parce que du du ngeen toog nii rek Sénégal ci caméra lañ dégg te du ngeen ci gañ dara aussi. jafe leen ngeen génn tekki ci affaire bi yéen ku ci nekk rek maison de presse yéen ñu ñëpp yi li nekk ci yéen sax nekkul ci ñoom donc voilà lu ma wax lépp daal am naa bu baax may wax bu ci topp mooy euh, ne nañu génn parti yi lenn def mën a wane mooy condition de travail bi def def parce que ku ne xam ne nag contrat c'est privé mais lii boo gisee ma ne nañ ko indi parce que suñu yoon bi dafa bëri woon ñu doon wet ne ñun FIFA yëpp ay wax la quoi te man am na wax na ko dépassé ku dul FIFA sax jomb naa naan jiw moom moo yóbbu ko yóbbu man dépassé naa loolu ci aar lii euh, sama nationalité européenne la maa ko jotee ministre de la bu Hollande moo ma ko jox ok résumé leen dem leen si sama site sama website www lions of africa dot com li nga gis ministère des affaires bu Hollande mu ngi mu ngi bind lettre bi depuis 92 lettre bi ñu ma joxee séjour ba ñu ma jotee nationalité te ci culture bi nga ku ma liggéey mais di ngeen gis sama date de naissance sama numéro euh, sama date de naissance sama ak su ma ak at bi après li ci des am na maanaam mais li ngeen gis man ci yooyu sax bu ma teg ko après yéen ngeen ko gëm si sama bopp. toppale ma ba taay pour sama nationalité sénégalaise ba bàyyi parce que sama mission moo doon ñëw Europe euh, ñëwaat sama dëkkaat jox sama sama dox jox sama loxo te man filtre bi man Arma de Guerre laa ko def parce que da ngay nekk Europe day day gis loolu lu métti ci sa ci sa sa sa vélo sa race bi ay humiliation ay discrimination te man jamais dama sentiroon ko Pape ne man lii bokk naa ci ñu war a xeex ci sama côté quoi moo waral ma jël ñëwaat Sénégal créé groupe bi tuddee les les Lions d'Afrique Lions of Africa pour représenter culture africaine ci culture bi nag man am na ci am naa ci ay yoo xam ne nii na sama bopp parce que fekk naa ay nit yoo xam ne dañ ñu doon xoolee bëtu waaw ñoom dañoo xeeboon mais suñu kilifa dugg fu ma gis seen lu bari changé seen bopp am na daal lu bari lu mu defar ñun suñu présence yéen dëkk européen lii mooy man si nga xam ne nii ko def arme de guerre laa ko def lu ma métti Europe ñu koy teg ci dara lu ñëw maa ngi utiliser culture bi pour xeex te maa ngi gis résultat yi quoi loolu moo tax te xeex du benn nit moo tax ma daje leen ñoom ñëpp ñu booloo yëkkati drapeau Sénégal fu mu mënti mu jëm ci wàllu état Sénégal man amatul ma coow parce que li ma waroon wax yëpp wax naa point de presse bi tey def ko sax wax ni sax mënoon naa ñàkk parce que boobu ante man ak ñoom parce que nit boo ko génnee fii boo demee nag ko waxee ci condition yu baax donc man ak ñoom loolu ñuy dundee bëgguma woon sax ñuy débattre ci loolu parce que loolu c'est ante man ak ñoom la li ma bëggoon mooy ñoo résultat yi ñu def kata ñu ngi dem ñu mu métti ak bi ñu demee parce que depuis six mois maa euh, amul autorité bu ma bindul Cheikh Tidiane Gadio toog na fii sama point de presse passé méthode lu ko maa ngi yóbbu drapeau Sénégal te amuñu benn soutien amul problème parce que am solo may man ay ay man sama ci benn côté maa ngi suivre leneen mais su ma jëlee sama doomu réew ñu ñëpp yor drapeau Sénégal di taxaw foo xam ne nii fu ñu taxaw dañu yaakaar ne état Sénégal ñu gën te état Sénégal ñu ñëw ba tey ñu ngi leen ci góob mais bu ñu demee ba FIFA coupe du monde foofu la bët yem ma leen di contacter depuis six mois kenn dafa kenn réagir man du ma politique comprendre nga euh, sama doole naa ngeen war a politique bu fekkee côté bu moo tax ñu bëgg a wàññaat sama loxo yow nga xam ne mënuñu wàññaat sama loxo parce que man juste nee koo tax nee na Dakar mais am na fu ma yóru baax am na fu ma yóru bu baax kon donc état Sénégal li nga xam ne man bu ma laaj ko ay junni moromam ci Sénégal ñu ngi Europe junni moromam yoo xam ne maa leen fa bàyyi te su ma neexoon laaj ko mënoon naa mënoon naa liggéey sama carré bu mu te ma jël doomu Sénégal fii jël fii Sénégalais métti mu métti ak risque yi ci nekk bàyyi fii ñii xam ne ni Europe la li ngay def te am bés foo ko bàyyi da nga tëdd nelaw doo xalaat ne kii moo ñëwee bu ñëwee du ma ko fekkaat mais moo bàyyi ko ñun ñëpp dellu si waat parce que Sénégal bu ku dem doon dellu si waat kon dëkk bi li fi nekk parce que état bi dafa parti boo xam ne nii yoonam nekk ci mais côté culture ak yeneen côté même footballeur yi sax ku fi tàkk ñoom ñoo reyante seen moo tax ma leen di wax yéen ñun ak yéen ñoo bokk problème bu ngeen toogee di xaar seen dirigeant yi du dem parce que fi ñu leen bëgg a téye foofu comprendre nga jumaa del si waa Sénégal ay ay sacrifice yu métti mais ba tey xeex bi bëri na ñun bi ñuy defar fii xeex façon xeex la ñu xeex dama dem naa Qatar Sénégal sax qualifié pour coupe du monde ma jël risque dem fa bi ñu fa demee yàlla def li Sénégal bu ñu génn man maa ngi woon foofu yàlla def Sénégal ñu ngi doon Sénégal ci éliminatoire yi loolu loolu parce que man ku nekk ku ne xam nga billet Qatar un million fekk ñu jël risque bi dem ko foofu yàlla def Sénégal qualifié par accident ma dajeeg membre FIFA yi ñu xool sama liggéey ñu ne ñoom lii moom il faut ñu indi ko ñu mu neex mais après quelque temps pour ma jot contrat ak waa FIFA mu nekk problème ma ne waa mais bu mu demee nii sama jabar tubaab bi ne mais ñun ñii bu ñu leen bàyyi affaire dafa neexoon léegi lan mooy am na am na xeex boo xam ne nii ma gëm loolu quoi mais am na xeex boo xam ne nii. ñu ngi woon fii de Dakar la jógee mais malheureusement jéem nañu nag pour éliminer mais dañoo xool qualité spectacle bi ma yoroon ak bi ñu leen doon proposé mënuñu ko man ñu ngi ay supporter ñu ay artistes professionnels lañu fu ñu dem dañuy wane qualité donc bokkul ak ñi nga xam ne dañ doon dem bind seen kanam oo oh, ñun non ñun bokkul ñun dañ doon dem pour animer coupe du monde bi te waa FIFA. dañoo toog ak ñoom li may wax yëpp dafa am place dañoo toog ñu seetaan affaire bi ñun ñoom lii lañu bëgg ñu animé Sénégal dóor nañ ko parce que pour ñun ñu ngi mën ci encouragé leen stade bi chaque nationalité da ngay am sa pëjum bopp ñun Sénégal heure fu ñu ko même buñ fubal ñun la ñun ñooy ñun la nekk ci pëjum ak ñooy def ñooy def animation bi ñooy def spectacle Sénégal bu ñu mujjee dóor Sénégal dafa mel ni ñun man ñoom sax am nañ problème parce que ñoom dañoo dugg di seetaan match bi man mënu ma dugg parce que maa ngi ci waaye responsable bi mënu ma dugg mais bu ñu leen dóoree ñu wax ñu nañ dem ci pëjuma Angleterre di dóor Sénégal pour ñu la fay spectacle xam nga ki dóor sa nga war a taxaw ci pëjum di di ko gérer da ngay nga mais on est obligé parce que Sénégal yomb FIFA moo yomb suñu yoon nekkul ci ñun bu ñu doon doon dix ans ñun li ñu wax ak ko def nga dafa métti quoi noonu lañ ko nekkoon ak ñoom ñun le premier décembre lañ jeexal ak waa FIFA mais bu ñu toggee man dañ am ne deux jours de repos war nañ ko toggaat une semaine avant ñu ñibbi lan laa demee dañ ma woo ne ma dañ leen dañ leen soxlawaat public bandee di laajte ñun li ñu war a wane ñëpp wane ko fii sax parce que temps bi xajul woon fii quoi parce que suñ doon xalaat le 21 décembre bu ñu rëccoon xam nga fee ni ñu kenn taloon ay pré euh, conférence presse donc dañoo profité nii rek pour def lii quoi mais wax dëgg yàlla li ñu fa def lii parce que ñun du ñu ay amateurs ay ay spectateurs la ñu xam ay voilà donc li ma bëgg a wax rek mooy euh, yéen laay ñaan yéen journalistes yi ngeen li ñuy def parce que ñoo bokk même problème ngeen jàppale ñu jàppale leen te normalement chaque groupe war na am ay quelques collègues de presse yoo xam ne fu mu jëm ci àddina bi war na woon génn te àndul ak yéen du woon noonu ko obligé li ma jot a jël yëpp maa ko jël mais loolu mënul nekk yéen ñun ak yéen état Sénégal waroon na génne budget boo groupe buy dem fii mu am trois organes de presse bu ko topp mais loolu mooy indi progression mais dëkk bi lépp ci benn affaire nga concentré wu boo taxaw ci télé bi saagaan na diw waxal ma di diw doo bokk ci sama kala bu doon gis ne shit about that ñun suñu yoon nekkul ci loolu ñun gis lañu domaine ndax mooy suñu domaine loolu lañu nekk di xeex te résultat yi ñu ci am man li ñaan bu fi amal sax neex na parce que gis na ay nit yoo xam dañ ñoo xeeboon ñu seetaan ñu regretté ba seen ménage yi commencé say ñun ñi commencé di ko suñu te booy seet tubaab yi ñu ngi tëj buntu yi pour benn nit bañ fa duggati culture bi kese mooy li nga xam ne nii moo moo moom lañ mënul tëj donc maa ngi ñaan euh, man ñaan ma état Sénégal yéen naa ñaan yéen presse yéen nga xam ne lu fu ñu xam rek nit yàlla ak yéen la ngeen gën a ñu gën a boole suñu doole yi gën a mën a feeñal culture africaine culture sénégalaise maa ngi remercier aussi sama artistes yi nga xam ne nii métti na trop ci ñoom parce que fii boo bëggee dem dafay bëri gàllankoor mais ñoom dara dara fokk seen bët maag ñoom deful ma leen dara lu miracle yàlla moo mais nit booy nga gis di nga gis li nga xam bari lu loo ko quoi maa ngi leen gërëm di leen sant yéen ñëpp di gërëm aussi sama grand bi Doudou man ak moom yàgg trop mooy koo xam ne nii bu ma amee métti mën naa waxtaan ak moom te du ma du ma maa ngi nuyu nag sama sama waa bureau Aïcha Aïcha ak Khadija Omar Omar mooy euh, ki nga xam ne ni moo nekk ci ñëpp lépp lu ñu def moom moo nekk ci wàllu montage bi tout ça xëy na sax ay liggéey ñu bari ñu koy gis 2STV bi ñu bari xamuñu ne moom mooy def loolu. parce que boo gisee ma ma ne nañ ko xool parce que dafa dafa doon métti ni ñun demuñu fa fii donc ku gën a war a du bari mais temps bi may mais dinañ gën a montré. yenn yi nga xam ne ba pare ñu wane ne FIFA muy mu ngi nii donc même supporters équipe nationale du Sénégal dajale ñu ak ñoom autorité sénégalais yi doon bay ñu soutenir bu ñu eggee ba foofu dañoo gis suñu liggéey ñu bëgg ñu récupérer ma seen noonu fii kenn poussé fi de depuis seen Sénégal ñu ngi leen contacté six mois nga dee li ñu dajee fii yéen ngeen gis succès bi ñu am fii ngeen bëgg ñu récupérer wax délégation ne def nañ ko pour jël suñu artiste pour ñu ne daj nañ ko Euh, maa ngi jéem lu am ci si nga xam voilà euh, non non non non sama sama ko jóge France spécialement pour loolu lay wax maa ngi loolu garaas moom donc maa ngi euh, xam naa dama koy tënk fii rek parce que voilà maa ngi bëgg moon wax sax parce que tey mooy point de presse bi maa ngi remercier la presse yéen laay remercier parce que yéen foo aar nekk wala fii Sénégal bu nga xam ngir yàlla ak yéen parce que. waaw voilà donc waaw waa FIFA moom moo ni ma la bon ñoom jëluñu ñu ngir yàlla dañ ñoo jël ngir suñu temps parce que man jiitu naa ko avant yéen rek les terrains ñu gisu leen rek moo tax ñu jël yeneen coupe du monde yi ñëw rek voilà dafay wax waaw dafay wax benn benn américain moom moo def seen photo culturel kooku moom mu ne leen yéen meilleur groupe ak ci ci coupe du monde quoi man fekk moom après bu mu ñëwee ne ko ma dem waxal moom mu ne man nañ ñoom lépp lu fi ko jox man man naa ko def mais maa ngi seetaan bi ñu ñëwee ba léegi mais yeneen meilleur groupe parce que FIFA ñaari groupe lañ jëlee Afrique mooy ñun ak Éthiopie ña fa fekkoon bu ñu commencé ñoom dañuy bàyyi seen ay ñoom seen bëgëm ko wane mais nañ def foofu vraiment ku jeexal le premier décembre ñu prolongé une semaine après ñun buñ buñ même bu fekkoon ne ñun dañoo demoon que huit spectacle loolu nit dafa ëppoon ci ñoom dama dem ba bu ñu bëggee prolongé ko après final bi ma leen noonu fii la ñuy parce que tamit damaa waxante xam nga tamit nit dafa war a reposé te bu spectacle ñun trois de matin la ñuy egg ci hôtel bi deux heures la war a dem midi mu met onze heures ba yeneen da taa ñu ndékki war a jëlaat bis bi dem affaire bu métti lañ doon dund ñu mën ñu feebar fa wàllu ko kii kii wax dañ dem ba affaire bi mënut xam nga waaw bu ñuy dem mbuusu garab lañ que nit xam nga feebar ay nit ñu dëkkandoo xam nga te day sa bopp bu ñu xasee ba euh, ci hôpital bi il faut ku ci nekk nekk sa chambre mais dañuy dajale ci benn ak yi ci moom fu muy dañu baale war nga ak suukar moo tax bu ñu feebaree ñëpp ko ko wàllante mu métti mais teewul feebar na mais dañ ko rayante rayante ba tey mais euh, maa ngi ñaan presque ku soxla plus d' information ci wàllu liggéey bi def ak FIFA ah, naa la ko jox que lépp mënu ko nekk mais ngeen xool li di ngeen comprendre quoi parce que il faut que ñu leen doon def merci beaucoup. voilà merci beaucoup defe naa ne conférence de presse bi jaar na ci yoon di remercier encore rek euh, la presse sénégalaise parce que lii lu am solo la. yéen bu fekkee yéen ministre bu yéen la ko yàlla na yàlla na yàlla na tey Aziz Dine euh, li nga xamante ni moo itam day naaw di dem ci avion yi ñu dugg ci suuf mu ngi nii ñu naan leen wax ci ngeen boobu. doomi sax ci réew mi nga juddoo fi nga fekkee fi nga dalee baa fi nga dalee sii fi nga dégg doy fi nga dégg lu ne prouvé woo on le comprend da ngaa prouvé Sénégal yëkkati leen sax Sorano ñu la jox dañu leen déedéet bàyyi leen ko waa Sorano boobu moo ngi tudd bi di prédiction laay waat lettre bi ñëw Afrique ñu ne déetawaay grand théâtre ñibbi ñu dugg seeg wax la nga ne déeta waay leen ñu liggéey ci leen tuddee nag of Africa ñooy gaynde gàcce nga la wax amul dara xewul lamp yi day tànk na lamp yi tànk yaay Sénégal passeport bii bulu bara du ko am dangaa liggéey ama ci lu la ko joxe ci culture dan la joxe nga ay xale yu góor xale yu déggul wax yu ma ma nekk Sénégal yor li ma war a yor di ko wax di ko def génne leen génne leen carte yi lii du ay wax déedéet lii du ay wax monsieur Djibi Ndiaye waa FIFA génne leen carte yi preuve na carte yi génn na ma mooy ci na carte yi génn ba leer xam nga Sénégal dañoo baaxoo wax. te booy wax da ngay wax loo xam man Abdou Aziz Ndiaye man ak yow Russie man Abdou Aziz Ndiaye man ak yow Hollande man Abdou Aziz Ndiaye man ak yow France barki Demba Ndiaye ni may dem man Argentine man rek maa dem ci juillet bi ma demee ni la ay trophée culture bi noo ci am xam nga loo ko delloo bëggoo ko feebar bëggoo ko sonn nan wax nag day soog a jot ni ñu ko lu tax wax ñun waxagul yoon mu ne maa ngi woon ci waxale toog waaye tey nag wax jot na monsieur Jibi Ndiaye Baba Jibi Ndiaye ci dugub lay day mbaay fulaak fay da borom soneeru mbaay koy dootal ak xanaa ni ko jëlee ko ey ey waaye kàttu nañ lii waay waajaani waajaani waajaani waajaani waajaani waajaani waajaani ku la lekk dee ku la naan man ku la lay génn li mu wax defe naa ni am na solo parce que maa fekkee ah police day bañ doon nekk. ba ma yóbbu Dorses. loolu am kenn yóbbu ma woon fenn kenn bëggu ma woon bi ci dama bëgg yaa tax télé yi fonk ma tax ku ma bëgg télé yi ma mën a bëgg ndax yaa ma dugal àll bi yow. mu ci chef yi mu daan seer mu jékki-jékki tubaab bi romb ma ne si waaw fan ko waa ananas ba xel yi ah ana Bella ki may waxal moo tax ndax ñu koy jot tamit mais tax nañu Louga PR Sakkan ak ñu ne suñu mbokku dugg Allemagne Suisse Angleterre ana Bella may ko mu jàll xale yi tàcc leen Bella Bella Père Assane Bella ngi noonu Laye Roulase ngi noonu. xam nga lu war a laaj ananas dafa nekk Hollande di ko lëmb coow la bari mu takk ay rassam mel ne ñaari ananas nga xam ne boo ko naanee day neex ñu tuddee ko day am. salaamaaleykum euh, mbooloo mi su ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur sa sant ndax ku ne xam na ne tey li grand laay ananas def. baax alalu yàlla la taxaar tam koy dee ndax euh, voyageur bi nag moom ku ne xam na ne bu dajeg waa ñu mos kéydu balaa bu def dafa jaar boo ko a soxla si dafay dal te li la defam waa Sénégal waaw li la defam waa Sénégal parce que euh, bañu ku ko mag réew mi la bëgg bu ko ci ëppale dara muy dox di dox ci lu baax te xam ni lu yàlla na war na lu mu mottal daa jot te lu jot yomb ndax jëf bu na toog bu la àdduna ñoo leen si la waaye bu la dëgg rek ñoo leen bu la dëgg rek ñoo ndax di nga lebal nit lu baax bu fakkasal la di nga jub pour def lu baax bu baatal la di nga jub pour def lu baax i daa ko ci dara ñu teg ay wax ci sa ginnaaw waaye boo dëxee tuumal lu lii lépp du la ci nekk nit baax nekk nit ku bëgg sa réew nit ku mën a dimbali waa picc nit ku bëgg waa picc parce que dafa daje ay xale léegi koo waxu ni laay ananas moo ma embauché nga dëkk ci réew mi di créer ay emploi kon réew mi gën ëpp lu mën a ci dara te leer na soo doon tëbbee gauche di tëbbee droite tamit doo xaar kenn ci kenn loolu xaar jiitu réew loolu damay xaar lenn mais tamit dañuy dañuy lancer un di woo jiitu réew mi parce que ñu mel nii parce que xale yu góor soo demee marché danga leen boo demee boo demee yéen ñu marchand ambulant yi danga leen fay fekk kon bu gisee ñu toll nii mel nii dëkk Sénégal nekk Europe waroon a bew bëgguñu dara jàppale seen réew ak seen ndaw yi réew ñoom dañ leen a war a gestu leen dimbali parce que li ñu waroon a def ñoom lan ngeen di defal ndax loxo mënta mate fépp dara tamit mënta jote fépp mais kon bu dee ñu koy def di bay waaram ci réew mi xam ni Sénégal Sénégal ñëpp la ñun ñëpp ñoo ko bokk bu kenn xaar kenn na ku nekk nekk ca la nga war a ne ba dara fekk la jar ndax bis bu la sa raw boobu bis dem na beneen buy ñëw xamoo mu àndal su ko su koy yàlla la ñu xalaat loolu di la jaajëfal wax wax leen lay ananas wax leen lay ananas wala lay ananas ci ay ko ci tànk sa loxo bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti bi métti ay ci sa xoolee doo dee xoolal ku bëgg sa yaay mooy sa loxo ca kaw xoolal kuy jaatu yaayam lay ananas lay am naa naas lay am naa naas lay am naa naas waay lay am naa naas wuy sama may wuy naas xoolal dama ni laay teral sa ndey su dee joxee wës sa kenn du la yërëm xoolal teral sa baay su dee joxee baat kenn du la yërëm sa yaay dalaa rotal doo fi mar xoolal sa yaay dalaa jokkam doo fa ndee xoolal sa yaay da kuy mara na mera sa yaay sa li lii lii bëgg teeral ndeyam lay anaan ay wax leer lay anaan naas léegi laa ko naan naas léegi la duma naan ay ku ci tàcc sa loxo du biti asal sama man bi ma bokkee ci groupe ba ma ci boolee yàgg na laay nii waroon naa yóbbu ma voyage yi ay année deux mille neuf ba deux mille dix maag bàyyi ma taal bi gaari tey yàlla na ko yàlla xare àjjana mu ne ma sàddaaka damaa bëgg liggéey ak yow ndax dangaa am talent boole naa la sama groupe yàlla mu moo dugalagul woon ndax damaa nekkoon ci téléfilm yi moom it mu nekk yeneen i projet mais groupe bi ba ma ci nekkee yàgg na 2010 ba tey waaye nag c'est normal xam nga moo tax war a def ci yow attention damaa bëgg ngeen déglu bu baax xul a'uuzu bi rabbi naas maaliki naas ilaahi naas min sharri waswaasil xannaas allazi yuwaswisu fii suduuri naas nga ñëw tudd laay anaanaas te xul aawusu bi rabbin naas day dindi cat day faj aajo doomu aadama yi moo tax laay ananas yow mënoo lu dul dimbali doomu aadama yi def seen seen seen i aajo damay wax naan kii leen kenn du ko jaay du ko wutali ko kenn ndax ñoom la mën a wax naan xew ci lay bàyyi laay xooloo ñu ne sax damay xool ñu am talent boobu wala ñu liggéeyandoo ak ñoom kon yàlla na la yàlla jàppale laay yaay Sénégal yaay Afrique du yaay Europe yàlla na la yàlla dafa jàmm di wax seen am. et man maa nekk fu ma. wax ci sama jàppale laay maa ko way na ko ay ni ay ni laay na naas is very koo xam ni dafa jàppale laay di gërëm nag sama artiste yi parce que laay li mu ma def ku mu ko def nga sant yàlla Abdou Aziz Ndiaye yow yaay sama dirigeant groupe lu muy def wax ak man di yëgoog man ne ma Abdoulaye ma ne naam mun ma yaa ngi doog a tàmbali 2S ñoo ngi dem ñoo ngi ñëw groupe bi ñëpp la jëndaloon tey ñëpp la bëggoon yóbbu mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam xale fa jom ay maestro rek ñoo toog nii am na ci ñoo xam ni ay artistes mais ñuy biir trop ku mel ni biir tey ak suñu xam ni tey jii dem ci àdduna Doudou Gueye day sub si bi gën mag moom Pépé li ma gën a neex mooy ñu bokk benn affaire doo xam kan mooy solution bu mag bi te ñoom ñaar ñëpp ay kilifa dafa neex asal ñëw pour ci la leen père pour bi ci artiste yi ci directeur yi la ci at li ñu toog ci artiste yi la compagnie bi dafa yaatu soo waxee Maguette wax nga Xadi Bambara wax nga suñu jaamu bi wax nga ki nga xam ne Balla Ndiaye moom xam na man xam naa dama ne ko da nga war a doon leader ngeen baal ma ci baax boobu gaynde yëpp Pikine mu jóge waaw non loolu moom baa ngeen tey jii Almadies bi ngeen gis ak Sénégal li ñuy wër doomu baane yi ñu def ci Sénégal kenn def ko moo tax dañ leen war a fonk war leen a teg laay yàlla na ma ko sax ku lay xaar yàlla na xaar ñun ñu ngi sant yàlla ndax li tax ñuy sant yàlla yow yaa ngi def taxawal yaa ngi def lu mu doon man ku ma xam ci milieu bi xam ne ñàkkuma fayda ñàkkuma fulla te day ne googu yaa ma ko def coow li faaw bari coow li boo coowee coow li bari boo coowul coow li bari parce que xam nga lu tax ci réew mi nga juddoo fi nga fekke baax laay daan na ñëw ci benn kër xool taaw bi xool ci kër gi xam ne amul kenn koo xam ni mën na jàppale seen waa kër bu jël taaw bu yóbbu wóoram dem leen ñaari tali wala Grand Dakar ngeen laaj ko wala ngeen dem Medina li may nekk moo a jëndal mbase njëkk maa jëndal xaw tabaski moo ma def gaynde moo tax juxuma moo tax man moo tax doon ma góor jigéen parce que moo may wax góor nii lay mel te dëkk bi léegi da ngay doon artiste di yàmbat di wéññal bu def doon mais moom musul nangu lool ci àdduna góor na ngay doon góor aar ah, na nga koy def doon góor boo dee bëgg nit mu xam ne góor ay fet waaye doon doon boo dee bëgg nit di yegg di def ay genre na la yàlla defal jàmm defal ko defal woon duñu ko te yi ñu toog soo ko defal woon duñu ko wax tey jii àdduna bi yëpp li ñu tax ñuy seetaan yow dañ la war a def ci ministre de la culture parce que boo jëlee nit koo xam ne politique moo tax nga fal ko xamul culture day yàq culture il faut que ñu jël nitu culture yi teg fi ñu war a ne ku mel ne laay ananas ba ñu war a jël samp ko loolu àdduna bépp dañ koy jooy mais bu dul laay ananas di keneen ak keneen koo xam ne nitu culture la culture bi bari ki démb bi ñuy fay am na ñoo xam ne jotuñu filtre bi bëgg démb bi ñuy dem tey jii laay bu dul woon waa FIFA amul kenn ku ko jox benn moyen pourquoi mënuñoo jël nitu ñu nekkee mais léegi jamono bi ne nitu yi dafa mel ne te xoolal ah ci nekk nit ki mel cent ans fii rek lañu respecté wu musée mais boo demee Europe boo mel ne am na fu luy bégale waaye ananas ñaata spectacle de presse du dërëmu kenn du bëgg lu ko neex moo tax ñu koy wax. mais dafa jot pour Sénégal président Macky ci yow laay jiwoon direct jàppaleen laay attendance nii woo ko pare mu ñëw parce que culture Sénégal bu ñu ci def chaque jour ñu def benn affaire boo xam ne œuvre boo xam ne day wax ci wàllu gaal gi kenn bañ a dem ci gaal yi mu def œuvre boo xam ne yow boo nee ne artiste bi war ngaa mën a fecc ñu bëgg a ñett ñu xam ne góor nga chaque mu def ci aar bi loo xam ne boo tukkee da ngay ñibbisi waaye doo daw que